بسم الله الرحمن الرحيم iqra bismi rabbika alladi xalaq asalaamaaleykum mbokk yi si ndigalu sëriñ Mouhamadou Mountakha Mbacké Bachir xalif général des Mourides si kilifteefu sëriñ Cheikh Lo xalifa sëriñ Bara Lo Touba Mekom Lo mbokk julli di mbokk taalibé yi sëriñ Mahamadan Lo mooy leen di yëgal ni kat dinañu amal sombub liggéeyub daara al karim di nag barab bu tedd barab bi nga xamante ni mooy def xam-xam si dënnub tuut tànk yi ngir nag ñu mën a doon ëllëg ñun ràññee loolee waral mbokk yi sëriñ bi mi ngi yëgal mbokk jullit yi fépp fu nekk si biir Sénégal ci biir àdduna wërngal këpp ñu tàbbal seen ñàq si liggéey bu am solo bii ñeel tàggatu tànk yi mu doon nag daara bu moderne fas yéene def xam-xam si dënnub xale yi projet bu am solo bi mbokk yi ñuy amal si Touba Bekom loo ñoo ngi si woo ñëpp ñu ni bàyyiwuñu kenn ñu fenn bëgg nañu ñëpp def seen jaayante ci lii ñuy taxawal si Touba Bekom bu ngeen si nag bëggee ay renseignement wala ngeen bëgg si tàbbal seen ñax numéro bii ñu bëgg lim doon na numéro Wave nekkit numéro Orange Money 78 301 54 13 78 301 54 13 ginnaaw bi ci amee ndigalu sëriñ Mouhamadou Mountakha Mbacké Bachir xalif général des Mourides ñoo ngi woo ñëpp tàbbal seen loxo ci liggéey bu am solo bii kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin naasiya naasiya